bu ñu san jullee ci bu ñu sante yàlla julli ci yenent bi ñaanal suñuy ay waajur ñaanal kilifa diine yi kilifa aada ñaanal kilifa quartier yi ñaanal képp koo xam ne bokk nga ci ñun te féete nu mag ñuy ñaan yàlla na fan yi gudd waaye yàlla na réew mi am jàmm di ñaanal président de la république ñaanal première dame ñaanal opposition mag kenn waaye ñaanal sama bopp man soxna ayda Saliou ñaan gudd fan ñaan wér ci sama bopp te di ñaan sénégalais yëpp nan ma ko ñaanal ndax njariñ gi njariñu Sénégal rek laa ko fa yéene booleel. may waajal bis nag ku xam Soxna Aïda Saliou xam ko ci développement waaye ku xam Soxna Aïda Saliou xam ko ci vaillante de peuple maman nationale waaye maman nationale boo ko dee wax maman internationale dafa am objet objet bi nag bi ma juddoo ba léegi sama objet mooy fas yéene rek. partagé waaye fas yéene tamit lépp loo xam ne am naa ko ma delloo ko sama askan bi ci njëkk di social social nag mënoo koo def te amoo yërmande mënoo koo def te amoo looy sentir ci sa réew bi ma juddoo nag doon ki ma doon yëg-yëg bi ma njëkk am objet bi ma njëkk am mooy jariñ sama réew mais international ndax foo wër ci àdduna wërngal képp doomu Sénégal la nga fa mais ñun jigéen ñoo xam liy metti ñu dëgmal mois de mars ma génn ay marché yu bari marché yooyu yëpp nekkoon soxna Aida boo xam ni dadoon liggéey vaillante mais au digne personnalité garaat gëm boppam di femme les maisons toog ci sama wetu borom kër di liggéey français bi nag nu ko waay jàppee nga jëndee ko noonu parce que bi jàng jotee damaa raayoon xoltu gerte yi ci laa màgg mesure xam lan laay fourni sama réew moo indi tey keppaaru soxna Aida mum Serigne Saliou bi mu ñëwee nag ma fondement ko amal ko kattan amal ko doole mooy damaa xeebut li ma yàlla di jox as tuut dama ko partage ndax maa ngi xam ne partagé bokk na ci sax benn kilo ceeb boo ko sooree sa kër bañ ko yemale ci njaboot gi nga jur rek war nga cee sóor ki xëy di jaay mbuus wala ki xëy di ambulant te mu wóor ko ni plaatu ceeb bi daf koy jënd te du ko mat dara bu ko bokkeek yow 300 400 cent yooyu am na lu mu ko mën a jëriñ mu ni ko sax woowee ko ay mbokkam yi mu bàyyi àll 500 boobu dina am lu mu ko jural loolu foofu laa xamee social di ko partagé di dem di ci waaxu ba objet bu am ci Sénégal ak lu mu mënti am soxna Aida dina ci participer bàyyuma daara bàyyuma jeeg bi feebar war a faju ji munta faju ji bàyyuma ki nga xam ne dafay ëmb war a def échographie mënu koo def mais am na de nga gis tey kuy lekk ceeb bu xonq am na koo xam ne yaasa bulet bu amul dara dara sax amagul lu mu ko toggee ceeb kilo 400 francs ku fanaanoowul 1000 francs yaakaar naa ne munoo togg ceeb bu xonq bu am tëll ak boppu jën ak moccaat may jigéen nag xam ko bu baax xam objet bi ma jaar ba egsi fii ma ne et eh, pourquoi pas ñu def les femmes bâtard les femmes développement les femmes forcées les femmes engagées looloo waral ma def keppaaru soxna Aida saaliw keppaar gi nag xawma woon ne tey dina ma fourni lii mu ma fourni ci àdduna international ndax tey ay Pamel la Pamel yi wër na àdduna kenn xeebul ñetti xarit kenn xeebul ñeenti xarit ba nu dem tey ci loo xam ne tey jii boo ne Ssion bala ngay wax yaram kalaaw ñëpp ne la présent jox ma seen bopp jox ma seen xol jox ma seen xalaat waaye nag taxul ma yanu ko ba yaakaar ne man a déedéet damaa jëlaat sama jëmm ju xeebu ji delloowaat ko askan wi tëdd ci suuf ñëpp yéeg ci sama kaw lu ci waay def baax na ndax njiit du fëgg dën ba tax na le 11 mars bii 2023 ma woote benn journée boo xam ne xam ngeen nu ma ko tuddee bañuñu ci dara ah. dawuñu ci dara suñu journée la suñu mois la ñoo ko moom waaye xam nga nu ma ko tuddee neex sa neex sa na ñëpp ñëw dooleel ma ñu ànd liggéey neex sa neex na na neex ba raw neex neex sa neex na laa woote nanu ñëw ànd ñu xam lan la ñu liggéey lu ñu jëf fan la ñu jëm ak lan mooy suñu objet objet wuñu ñu violence objet wu ñu na comme ni ma dëkk di ko waxee li ñu objet mooy yaraat njaboot gi la nekk ci journée boobu quinze mille femmes ak lu ko ëpp ñu ngi taxaw ndax tey jii rek am na ñu bëgg adhérer te amaguñu ay carte te lépp nag sama doole ju xeebu ji jaay naa oto jëndee motoy pomp jaay naa oto jëndee ko ceebu koor jaay naa or yu ma waroon a takk dugalaat ko ci jigéen ñi war a am ordonnance pharmacie rek benn peketu batrim am na ndaw su tëdd ba ngoon jot yaramam am lu cay xasan wala doomam am góom pour mu jënd ko ndax mënul dem marché ba ñëw delloo si day këriñ sax pour day for ay mat pour mottalee ko ceebam bi mu sóor pour mu ñor damaa dal moo tax ma yëg li xew ci kër yi nga dajale sa yërey doom mu nekk une semaine munoo koo fóot saabu 300 eau de Javel boo defee sa bilan fóot day nekk cinq 2500 francs te bu la wóoree ne yorogoo 500 francs boo jox sa njaboot ñu ndékki am na xale yoo xam léegi dootu ñu ndékki ecole dañuy ñëw doog a añ bu ñu añee njoganiku bu amee njoganiku am na kër yoo xam ne amatul boolu gan pour pourquoi pas ñun ñu dajaloo am objet bu ñu xeeb benn matière de liggéey mais nañu cuub mais nañu jaay omo mais nañu préparé suñuy soosu kaani mais nañu préparé suñuy suñuy madaar nañu préparé suñuy odd sevel jom ci suñuy wewi tànk la ñu bëgg a jàngal suñuy doom ndax am na ñoo xam ne dinañu dund ba dee te yëg-yëg gi nu am famille bu nu juddoo parewuñu démb léegi ku parewul démb sa tay ji mën naa bañ a pare kon il faut ñu programmer sunu démb ak sunu bërki démb ak sunu ëllëg na nanu ko programmer ci fii nu toll tey ak sunu njaboot ndax xale yi léegi seen xel li ci teg mooy am na ci ñenn ñoo xam ne violence te nanu xam ne kër yëpp yaay yaa ngi jeex nijaay yaa ngi jeex papa yaa ngi jeex kër yi xat na ay appartement la nañu xoolaat fan la ñuy teg sunu tànk ñi ngi am ay piqûres yoo xam ne mënuñu xam ne daf ñuy tere jur mais objet bi soxna Aida am géej la neex sa neex na laa woote bu bis ba jotee la 11 mars lépp loo xam ne gañe naa ko ci sama doole bopp ji nga xam ne sama jàmbaari bopp awma homme politique bu taxaw ci sama kanam awma opposition bu taxaw ci sama kanam mairie sénégalais yi xàmmewuñu ma ñu ngi may doog a xàmme tey bi ma bëggee woote bis ak samay ñoñ mairie bu nekk ak kilifa gu nekk ak képp koo xam citoyen nga soxna Aïda jox na la benn lettre de invitation boo xam ne dafa bëgg a ñëw nga ñëw xool lan mooy jigéen ak ñun lan mooy suñu objet ak lan mooy suñu taxawaay keppaar gi nag amul ay gone amul ay gone am na magum 60 ans am na magu 40 ans am na magu 30 ans am na xale vingt cinq an jeune grand pa maire ñëpp dinañ teew ci bis bi parce que ñun xeebuñu suñu woote ndax wootee lu ma leen kaay ñu def dara waaye dañuy tàllal suñuy loxo tàllal nañ ko ne képp koo xam ne autorité nga waaye ñu ngi koy tàllal koo xam ne kilifa diine nga kilifa aada nga ñu sax conseiller bu baax daf ñuy dimbali waaye lépp luñ ci am rek weeru koor gaa ngi ñëw te lu gën a yàgg gën a bëri charge gën a taxawu adhéré yi bari na bindu yi bari na soxna Aida Saliou nag ku tiitee ci biir kër gi da ngay yuuxu say dëkkandoo ba tax na yuuxu naa leen ci jàmm sa jàmm sa yuuxu naa leen ci keppaaruk soxna Aida Saliou gi nga xam ne keppaar ku ko xam-xam ne jàmm la woote péex la woote tatafu la woote ñu joxante loxo te xam ne loolu mooy sama objet te lu ma ci am rek maa ngi ko jëmale waat ci néew gi doole yi ak ni mu daan amee ku wër nag samay social doo réer ndax am na li ci des nag ak li nga xam mooy surprise yi ak lu soxna ay danar ak mbooloo moo xam ne yaakaar naa ne bu nu yàlla defalee jàmm ñu ñaan ci kilifa diine yi kilifa aada yi nañ ñu leen di tàllal sunuy loxo di sukk sunuy oom ak ku mu mënti doon ak tarxiya boo mënti nekk soxna Ayda yaay kilifaam yaay yaakaaram ngeen dimbali ma ci ay ñaan waaye ngeen dimbali ma ak mbooloo mi ma àndal ñu dooni jeune bëgg a ñeme lool fi nu jëm bëgguñu ñu xàllal ñu géew bi xàllal ñu ñu yaatu may ñu ci suñu place dafa am lu nuy jooy ñun ndey yi ñun yaay yi ñu ñi nga xam ne sunu doom yaa ngi dee ci lu nu xamul suñu doom yaa ngi dem ci violence te xamuñu fan la ak lu ko mënti indi na xëy nag tatafu dem ci gaal yi te sa yaay yëgul sax violence la ndax dem nga ci lu ñu xamul kon ñi ngi ñaan wallu ñi ngi joxe loxo na ma ñëpp déglu yuuxu naa te fi ma war a yuuxoo rek laa yuuxoo mooy ñi nga xam ne ñoo ma wane ba àdduna si xam ma ci lu baax ci li ma yaakaar ñi nga xam ni ñoo ma daan jël di ma présenter sénégalais yi ba ñëpp ne ok ñëpp ne ñoo ñu laa fa yéene nag toogalaatal tey waxtaan ak ñoom li jëm ci askan wi ak li may dëgmal la 11 mars muy neex sa neex sa dama ko woote ku am sa loxo nag tàllal naa ba ñëpp sotle si ci neex na neex na googu maa ngi ciy woo Sénégalais yëpp fu waay mën a nekk te bëgg lu neex te xam lu neex te mën cee joxe sa bakkan bi laaj naa la ko ku la teree dem ca neex na neex sa nag xamal ne bëggula woote naa neex sa neex sa na ñëpp ñëw waaw di ci ziar nag ajaratu soxna jaaga moom laa ciy sargal sargal bi munoon naa sargal sama bopp mate naa ko munoon naa sargal sama doom mate na ko munoon naa sargal sama ndey jiitoog mate na ko munoon naa sargal waajur wi ma indi àdduna ma gane si àdduna te du doyal ci moom am na fi ay référence soxna Bali Mutaxa ngi fi bari na soxna Mominatu Kebe ngi fi soxna ay Ayda Diallo mu Cheikh Béthio ngi fi soxna soxna Ngoy Faala ngi fi bari na tey Sénégal ñoo xam ne ay jigéenu référence tañu ay jigéen ñu soutenir jigéen lañu ma mënoon leen sargal waaye dama ko cité ndax kenn bu taralee ak askan te li topp sama ginnaaw askan la muy njaboot gu takku te moo ma doomam seppi ma wan ma naa mu Mouhamed nga xam defal na ko askanu Sénégal gépp man tamit awma lu ma ko deseel lu dul boobu ma delloo ci jaaga njukkal Wally Seck sama doom ku xam-xam ne ragal la féete day xañ a wërsëg moo ma wan lu sama yaay gisu sama baay gisu ko muy mu Mouhamed kooku mooy sama parrain waaye parrain yi nag àdduna sépp la président de la république yaay sama premier parrain Ousmane Sonko sama parrain nga képp koo xam ne yaa ngi ci Malick Gakko ma kenn Bougane Gueye Dany koo xam ne rek yaa ngi yëkkati sa loxo Sénégal ñor la soxna yi da jël na amee mais taf mais ànd juboo wasalaam merci beaucoup. di sant sañu ñaari waajur comme ni ko soxna ayda waxee rek loolu lañ koy waxe ndax li duuf ci nag bi xajul ci mbanak ndax comme li mu wax yéen ñun ñi dëkk ñoom ñoo ko mën a seede ndax affaire sociale bi mu wax lépp lu mu wax rek da koo commencé fi mu dëkk te boo xoolee keppaar gi xëy na keppaaru soxna ayda mu sëriñ Saaliwu xëy na Parcelles Assainies unité 3 yaatu na ñi fi dëkk bari na waaye moo ko fi njëkk sos mooy def bu koor jotee comme li wax ci social bi app ko ci koor de app ko ci korité app ko ci lépp ndax ni mu ko waxee rek roof yàqul jën oto lu mu xat xat xat xat xat nuyul ma sama yaay xaj na ci dama lay dëggalal soxna si li nga wax ndax ñoo la mën a ñoo ko mën a dëggal yaa ngi ci ordonnance yi yaa ngi ci jigéen ñi ëmb yi yaa ngi ci ñiy am doom yaa ngi ci feebar yi yaa ngi ci jàkka yi yaa ngi ci lépp te lii nag day wane ndax li ma la duuf ci nag bi xajul ci mban mi lépp ca bis ba ngeen koy xame neex neex nay neex neex neex. neex sa neex sa neex sa neex sa xam nga neex sa neex sa de neex na ba pare ndax yow dangaa di kii rek waaye neex na ba pare luy neex neex na la ca wàllas neex ko am na jël yow yaa boole mbul ak lambay te kenn meru yaa boot ñëpp yaa boot ndaw ñi te comme li nga wax dama la koy dëggalal gis nga réew mii ku ko bëgg yor tey fi tey doom ji ngay jur sax mu am ñaari weer sax boo ko naxul doo nekkan ko ñun ci jàmm la woote mu jiite ñu ci jàmm woo ñu ci jàmm ñu fekk si ko ci jàmm fi mu ne fii ku fi woote ay yaa koy wéete te surtout yéen ndaw ñi ndax ñun ku dem ba làq sa juróom benn fukki at daanaka li nga doon dund loo ci teg bénéfice la yéen ñii soog a commencé dugg bunt àddina yi gis nga kii ku muy liggéeyal yéen ndaw ñii lay liggéeyal waaye du ñun ndax ñun li ñuy am am nañ ko ba pare de dañoo bëgg a dundaat nag waaye dañoo bëgg fi ñu egg ngeen egg fa passé ko kon soxna Aida bis baa ngoo xale yaa ngoo ndaw ñaa ngoo mag ñaa ngoo góor ñaa ngoo jigéen ñaa ngi noonu tàllal nañ la loxo jox la sañu loxo ànd ak yow topp ci sa gannaaw bis bi daanaka yow moomoo ko ñoo ko moom ba samedi ak jàmm Thank you.